asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru shahru ramadan mubarak bu tedd bi di jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu wasila sunu digg ak sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te mottali ay yéeneem ak ne neesanam ci liggéeyal sëriñ bi te ñu ànd kook moom di ñaanal mbooleem ay rakkam ak i bokkam yi mu bokkal sëriñ bi ak mbooleem ay seexam ak i taalibeem yi aju ci seexul xaddim yépp ak mbooleem jullit yépp fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew di leen ndokkeel nag ci bis bu tedd bii nga xam ne moo tolloog bis bi yoonu murit juddoo di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Ramadan sëriñ bi fanaanee dundal laylatul qadri mu doonoon bëccëgub alxames boo xam ne ñaar fukk ak juróom benn yi ba jant soo dafa fanaanee dundal guddi gi jiite mbooloo ma nga xam ne ñoo fa nekkoon te xam-xam andi la andi woon leen fa muy xam-xam ba mu donne woon ci wajuram Serigne Mbacke Mor Anta Sali aw ko ca daara ja féetewoo njàngale ma ñoo ña fa ne woon te am njàng andi leen fa ne ca gannaawam mu jiite leen laylatul xadri fanaane ko ba fajar bi bi fenkee ba dox ab diir ci la ko yónnente bi sallallahu alayhi feeñu jàkkaarlook moom tuñanteeg moom wax ak moom saafonteeg moom ne ko nag ñi ànd ak yow te jàng képp andi leen fi nanga nga soppi ni ngay ànd ak ñoom te boole ci ab yar ak ittiwoo yàlla himma bi nga xam ne moo ne ci yow ba nga am lii nga am ci sa borom am ko ci man ci himma boobu nga leen di yar waaye bul yem ci arafi kese keroog nag la jaayante te di ko woy jébblu xew ci miim réew waaye fekkoon na mu amoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad radiallahu an almuminina id yubayiunaka taxta alshajara inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allaha yadullahi fawqa aydihim inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum aljanna kon jaayante googee saxaaba ya defoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca garab ga kenn ku di yëkkati sa loxo teg ci loxol yonente bi ne ko jaayante na ma ak yow ba Seydina Ousmane ma fa néewutoon sax ndax amoon gàllankoor di toppatoo soxna am su tawat wala lu mën a doon daal teewutoon yonent bi sallam xam ne jaayante bii mënta ñàkk dafa loxoom ne sama loxo bii laa jaayanteel Ousmane kon moo ko wutu kon jaayanteeg sëriñ bii daf ko yéegal ci jaayanteeg saxaaba yooyu nañ defoon nag yonent bi moo tax nga dégg muy wax sax ne baayaxtuhu fil baxri taxta shajara ak bàyyaxtoo fil barri taxta shajara kon moom moo njëkk a jaayante ak yonent bi sallallahu waaye yonent bi ne ko ñi ànd ak nañ jaayanteeg yow ne nga jaayanteeg man li ngay wut ci man ñu di ko wut ci yow muy himma boobu sëriñ bi am ba am lii mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkente wut ay jamono junne at ak lu topp waaye mu wax ne yusayiru nii kal aali wa saxbi sarmadan wal an xayrihi l muhyi mujj na mel na euh, ñooñ yonente bi ña ko jege ci bokk te sës ci moom ak saxaaba ya nga xam ne buñ jot ay bokkam it dañoo taqoog moom kal ali wa sax bi mujj na mel na ñoom di wax ak yonente bi di jëflante ak moom di jonjoog moom waxtu wu ne ci lu dul dara di dox diggam ak moom loolee nag mu ne li ko ko may mooy ittiwoo yàlla tey dégg ndigal tey bàyyi tere loola moo tax murid yëpp soppiku wëlbatiku nag bañ a yem ci njàngum kese waaye ittiwoo yàlla jaayanteeg sëriñ bi sëriñ aada ba njëkk koo def sëñ Ibra Saar Njaañ topp ca noonu lañ ko toppee ba ci fukkeel ba di sëñ Mbàkke bu naa sanaa dafaa newutoon yéex a egsi danañ indi liste boobu xam naa daañu ko leer ci tele bi ñëpp gis ko noonu lay doxee nag ba ci bisub tey bii ki mujj jébbalu kon nag may fasal taalibe bi yëpp donte tuut naa ci donte matewuma ko donte mënuma ko sax waaye sama xol mooy sotle murit yëpp ci bis bii nga xam ne ci lañ njëkk a jébbaloo ma fa sama loxo bii teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Mountakha jébbaluwaa leen murit yëpp ñu yeesaluwaat seen pas-pas ci Sëñ Tuubaa mi ñu yaakaar mi ñu yaakaaru lu dul moom àddina ak alaaxira ki ko fi nekkal ñu jaarale ko ci loxoom mu tegal na ko ci loxol Seexul Xadiim ñu yeesalaat sunu pas-pas ak sunu taalibe ak sunu jaayante ci Seexul Xadiim kon loolu rek mooy bis bi bisu fàttaliku bisu jaayante la bisu fàttaliku li nu booleeg sëriñ bi la bisu fàttaliku li nu sëriñ bi indil la te muy zaa nafin bilaa darari loolu rek mooy woote bi loolu rek mooy bis bi kenn ku ne def xool ci fa nga toog nga xool li la sëñ bi defal te mënuloo ko sa bopp xool bi nga duggee ci sëñ bi la nga mën te buddutoon sëñ bee doo ko man nga santaat sëñ bi te yeesalaat sa pas-pas loolu rek mooy bis bi kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fasaadeel ñëpp tey ñaan yàlla defal na jàmm def ko ci réew mi def ko ci réew jullit yëpp te jële fi mbas mi mu bañ fee ñëwati ak lu mel ne moom lu mu mën a doon te saxal fi jàmm ak xéewal ak mucc ak wér te yàgg la fi sax Muhammadul Muntaxa lool di sant nag Lamp Fall tàmbalee ko suñu àll yu ak i jëwriñam yëpp yëpp yëpp ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne wane gi ñu wane ne euh, rajo bi yoon wi lañ télé bi yoon wi lañ dañ koy wane ci wet gu ne ndax lépp lu jóg te bi kese tax kenn du leen ci jiitu kenn du leen ca man te lii feeñal na ko bi ma wootee ñoo njëkk wuy ñoo njëkk wuyu ba noppi defee ko noo xam ne kawe na njort te loolu lépp xam ngiñ xam ne lii dara génnu sëñ bi rek moo tax ñu duggee ci nii ñu ci duggee defe ci nii ñu ci defe kon nag ñu ngi lay sant bu baax sëñ Aliou ak mboolem ñu ànd ak yow sëñ Ibrahima ak liggéey liggéeykat yëpp ma kenn leen ñaal xéewal akuk mucc akuk yokk ci daraje sëñ bi di ko ñaanal jullit yëpp rawatina taalibe murit yëpp fu ñu mën a ne jërë ngeen jëf kullu aamin wa antum bi xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu